loolu doy na war ah vraiment. mi ngi noonu rek wante comme nu ko Martine waxee ginnaaw ndogalu yàlla suñ ko nangoo bu pare ñaanal suñuy mbokk yu des ci bato bi am na loo xam ne war nañ ko saytu muy loxowu nit ci euh, ci mbirum bato boobu le mm. te loolu ñi ngay wax bu ñuy def sànq euh, revue journaux yi ñi nga wax nan la ñu politiser Euh, gàmmu bi. may fàttali Sénégal loolu lañ politiser lépp. ndax bato bi lan moo ko tegaat si ndox bi politique dong la ndax président ab Ablaye waat moo ko diggee woon. Euh, donc vu que président wax na même su dee bato bi baaxul ñu jël ko tegaat ko si ndox bi. Ah, bato bi génne woon nañ ko ay bato bi amatuloon benn kayit. bato bi baaxatuloon bato bi daa nekkoon en révision defar bi baaxul wante ndëgëm président jël na ndogal ne euh, bato bi day daw. ñu jël bato bi teg ko ci ndox bi te bato bi rapport yu génn après wane nañ ne bato bi baaxuloon waruloon daw ci ndox bi amuloon sax këyit donc euh, mu doon loo xam ne euh, lu graaw la tey ji te politiciens yooyu nga xam ne ñoom ñoo waral bato bi dellu ci géej bi ñoom tamit euh, seen loxo mi ngi ci justice mm. ndëgam dañu politiser yépp mm. donc loolu mooy expliquer tout simplement la fait yoon yoon àttewul mbirum la joolaa mm. parce que ku la war a àtte mooy ku waral ku waral mbir mi kan mooy àtte kan moo koy def. loolu du mus a am su dee ñoom ñoo fi nekk ba tey moo tax ñun ñu jàpp ne peut-être que ñoom ñëpp bu ñu fi jógee incha allah. mbirum justice dinañ si ñëwaat Sénégal. te dinañ ah ñooñ fi nekkoon boobu ba tey. politiciens yi parce que ba tey ñoom rek la ndax nguuru Ablaye wat bi euh, Ablaye Wade jóge na fi wante ñi ngi fàttali ne bu bato bi suuxee ku remplacer ministre des transports. mooy actuel président bi euh, Macky Sall moom moo remplacé moom moo géré crise bi bu loolu weesoo occupé na toutes les fonctions également ba bu muy doon président donc dañ ko jàppee rek continuité ci manque de volonté politique boobu ci dossier bi donc euh, wàllum yoon ñun jàpp nañ ne comme nu ko euh, grand Habib waxee loolu xel xalaatul deux mille personnes gaañu ñu ne yoon yoon du ko àtte loolu xel xalaatu ko te jàpp nañ ne Sénégal yoon dina ko àtte incha allah tôt ou tard nu mu yàgg-yàgg nu mu yàgg-yàgg dina musal leer euh,